Xeweul TV ñu jaajëfalaat leen beneen yoon ci fidélité bi ci suñu ay programme euh, fii ci suñu plateforme digitale bi di Xeweul TV euh, tey nag euh, dañu doxantu ba Mbour ci ñëw ci quartier bu ñu naan Diamaguène daal di fas yéene rek gëstu boroom xam-xam boobu mag a mag a mag ñu koy wax rek Serigne Djibril Faye boroom tawféex tu nga nag du teew benn yoon ñuy nataal dañu koy dalal rek bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk internet yi bu ko defee ñu mën xuus ak moom ci waxtaan wi ci lu yaatu ci li nga xamante rek mom ci lay yëngatu bismillah barkeem sëriñ Saliou subhanaka laa xillamtana antal hakim jere jefati serigne Saliou ma ngi leen ni siyaare bu baax soxna ci te la fay nuyo te la ñaanal jamm ak tawfiq tay ñaan sa borom yalla dogal defal ñu ñu def émission bu neex ci barka alcorane ma ngi lay bu baax dila fay te daral jamm <laughs> ñu ngi kontaane waat bu baax a baax euh, sëñ bi ci ziyaare bu am solo boobu gannaaw loolu rek euh, dañuy daal di rek euh, tàbbi ci li nga xamante ni moom moo di waxtaan wi tey nag ñu ñu doxantu woon ba fii nga xamante ni moom moo di diwaanu Mbour plus précisément ci quartier bi ñu naan Diamaguène daal di lay fekk fii nga xamante ni moom moo di Samakan ñu fas yéene nag yaatal jotaay bi rek ci waxtaan lu yaatu yaatu ci li nga xam ne moom moo ñeel rek ci wàllu liggéey sering euh, Serigne Jibril fay borom tawfiq dañu bëgg xam euh, kanay dëggi sering Serigne Jibril fay borom tawfiq ak euh, ci lan lay yëngatu. waw soxna ci ma ngi lay siyaaraat bu baax baax baax te dila gëna bu baax di wax ne Serigne Jibril fay borom tawfiq mo ngi dëkke fi ci Mbour ci boori police jam jàmm gën waaye cosaanam dëgg dëgg dëgg kaba la nga kaba melni daanaka lii ñuy def sax foofu lañ ko jëlee ci sunuy maam lañ ko donnoo lenn li ci des ñu sàkk ju ko ndax daanaka Serigne Jibril Faye borom tawféex ci wàllu xam-xam dox na ci lu bari def na ci it lu bari am na ci yit lu bari waaw ci fii mu dëkk macha allah. dëgg la macha allah loolu solo waaye tey mu mel ni rek yaa ngi yëngatu ci li nga xamante rek moom di pajum cosaan eh, ci fànn bu nekk eh, ci ci d'après lu ñu am ci ay ay suñu ay sources ak li ñu jot a gëstu ci eh, Serigne Djibril Faye borom tawfeex ñu bëgg nag nga ñëw ak ñun ci lu yaatu ci lu ñeel maanaam loolu nga xamante ni rek yow yaa ngi ci évoluer muy pajum cosaan ak lan ak lan nga la Serigne Djibril Faye di saafara ci doomu adama yi waaw ñun moom yàlla dimbali nañu bu baax a baax a baax a baax ci wàllu faj ndax lu jiitu dañuy def faju cosaan waaye it dañuy ñaan ci alxuraan dañuy ñaan ci ci jalan wàllu ram li tamit dañ ciy ñaan kon Serigne Jibril fay moom ci wàllu ñaan yàlla dogal na da cee nekk polyvalent ba xeet bu nekk mën na ci ñaanee ñun nag donte mënuñoo faj lépp waaye li ñuy faj bari na te suñ borom mu ngi ci suturaal bu baax a baax a baax a baax a baax ci wàll woo dikk rek incha allah booñ ci laajee rek dinañ la ci leeral li nu xam bu soobee yàlla. d'accord euh, mu mel ni également dañ fi gis euh, ay ay bagages <laughs> ay bagages yo xam ni man bi ma du gisee sax xaw naa xaw naa tiit euh, waaw bëggoon naa nag Serigne jibril Faye nga ñëw ak ñun ci këll gi këll bi may gis nii nga nga nga baaxe ñu maanaam yow li nga xamante ni moom nga ciy liggéey rek jëm ci yi. waaw waaw leket gi ay jala mo ci ay tour mo ci ne jala nak maa ngi bari lu may dégg yenn ci sëriñ si di wax naan baaxul nangam ak sàngam la waaye dafa nekk loo xamante nit ki moom loo maîtriser wul rek jarul nga ciy wax ndax àdduna képp koo xamante ni yaa ngi ñaan yàlla ngay ñaan te bu yàlla nanguwul sag ñaan loolu du baax jalaa nag dañ ciy liggéey lu bari dañ ciy faj nit dañ ciy liggéey jàpp tubaab dañ ciy jàpp góor goo xamante ni dafa bëgg jigéen te mënu ko am dañ ko ciy jàpp waaye tamit dañ ciy jàpp jigéen joo xamante ni dafa bëgg góor te mënu ko am maanaam jala liñ ciy liggéey lépp bari dañ ciy liggéeyal nit sax wàllu alal mu am ko ci nu mu gën a amul benn conséquence bu ci am mhm. maanaam ci gàttal daal jala amul lum dul def bépp aajo boo xamante ni nit am na ko boo ñëwee bu ñu ci déggowee ci kàddu li ma lay laaj nga indil ma ko incha allahu rabi sa aajo dana faj. maanaam lii moom wala wala bokkul ak euh, li ñu naan magie noire. nga bokkul ba léegi. ba tey bokkul bokkul. Hmm. d' accord magie noire ak jalan bokkul ba léegi. d' accord. Hmm. yow léegi fitis. Mhm. ak ba léegi bokkul. ba tey bokkul yow est que ci wàllu boobu di nga ci yëngatu machine noire. waaw dama ci yëngatu magie noire xam-xam bu ñuul la rek. xam-xam la looy composé la maanaam ay cëri mala yooyu jël composé ko la am foo ko def maanaam tey jii nii su ma jëloon loo xamante ni ci bopp nit la jóge maanaam kaangu nit tey jii su ma ko jëloon am na lu may def ci muus bu ñuul am na ay sunguf yu ci mel ni ay sunguf fital ay euh, tàgg kàkkatar ma boole ko sox ko ci jaaro maanaam dama koy def ba mu mel ni forme jaaro ma yóbbu ko ci sën def ko fa su ma ko defee neuf jours day former jaaro jaara boobu loo bëgg mën nga ko ci am loolu mooy magie noire maanaam magie noire ay affaire yooyu composé la rek. waaw ndax euh, ndax Serigne Djibril Faye tey euh, tey ki nga xamante ni mi ngi toog jàkkaarloo ak yow euh, ci Xéwal TV bi di la seetaan maanaam tegtal yi nga xamante ni yow yaa ngi koy joxe lu ñeel ci li nga xamante ni loolu lañ war a composé ba mën a defar li nga xamante ni ba mën a maanaam. atteindre benn objectif boo xam ne dañ koy am ci àdduna mhm. est-ce que tey loolu euh, maanaam nit ki lay suivre rek di la suivre ci tegtal yi ngay joxe rek tax na moom mu mën a euh, atteindre objectif boobu wala tey lii loo xamante ne la dañ koy jàng ba ko waaw loolu nag looy jàng la ndax man euh, dama fay yor benn livre boo xamante ni sama kilifa gu baax moo ma ko jox livre bu yàgg na lool lépp lu ma bëgg a def lépp loo xamante ni bëgg naa koo liggéey ci sama liggéey bi suma nexé yi fi nek yépp duma ko laal ci livre bi manam jël rek xol li ma bëgg a liggéey ma liggéey ko manam walu magie noire yépp walu invisible yépp ci lool la ko jàngee ci la koy gissé tamit ci la koy liggéeyee. waaw waaw loolu moom waaw non parce que ñaan ñaan ñaan yàlla nitu simple du ko def maanaam koo xamante ni da ngaa xëy xëy rek ñëw toog ne da ngay ñaan ah déedéet maanaam am na loo ni lu jiitu sa dund la lu di def ci Hmm, di la won ay yëfam waaw yow yaa koy boole comme comme téer bi rek moom mooy xool lu muy créé. ci wàllu liggéeyam yoo xam ne ci yow. <laughs> Ah, d'accord léegi nga hmm. boole ci say astuce bopp. loolu defe naa ne leer na euh, waa euh, mu bëggoon également nga ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllum invisible boobu. Hmm. parce que lu xam a jaaxal gars yi la am na ñenn ñoo xamante ni voilà il se des tas de questions ci lu soxol loolu ginnaaw nag yaa ngi nii toog bëggoon naa nga ñëw ci loolu. waaw. Walu invisible mom, bari na sëriñ yo xamanteni ñoo ngi wax ne mën nañ ko amuñu ko mm-hmm. waye man invisible ma ngi koy liggéey ci deru muus bu ñuul ci la koy liggéey deretu muus bi lay jël bind ci lima ci bind ko nit ki da koy Wa ci loxom waye it am ci lo xamanteni ay jat la wa lo xam dama koy jat rek suma ko jatee wax ko rek def ko sama kanam nit dootuma gis sumo ma bëggee mu dañ mu dañ yooyu yëpp am na jat nag laa ëpp lu may baril lu may liggéey lu ci mel ni su fekkee damaa dem ci ci jotaay jotaay boo xamante ni luy lore dafa nekk wala ma bëgg def kéemaan su ma neexee damay toog rek ma jat ko diw ko sama kanam ña fa bokk ndool toog ñëpp kenn du ma gis. d'accord noonu la mu mel ni également tudd nga lu mel ni wàllu nga ne da nga ci yëngatu bu baax euh baax te ci barab bi biñ fi dugg see rek mu mel tamit également gis nañu lu lu mel rek ay ay xamb la euh, suma comprendre bu baax euh ndax lolu également mën nga ci ñëw ci lu yaatu waw walu rap mom dañ koy fajj dañ koy fajj ba mu wër plek waye comme ni ni ko nit ñi di fajee ñun duñu fajee non wax dëgg fa yalla ñun suñu liggéey dafa anda ak sutura waaw man li may man ni may liggéeyee bokk parce que ñaan yàlla sutura la ñaan yàlla bu ci sutura jógee rek nekkatul ñaan yàlla wala ngay ñaanal nit di ko vidéo di ko tas te te te yi nii ñuy fajee sax du loolu du faj ndax loolu benn sunguf la bu ñaan kati jànkoo sunguf boobu la ñuy jël suur ko nit ki moo waral buñ koy suur dañ koy dañ koy nëpp ba dara du feeñ ci moom muur ko jël biteel bi diw ko ci ba mu fees del xëpp ko ko loolu même nit ku amul rab sax boo ko defee booy wax ak moom dalay tontu. loolu la nit ñi di def ok loolu la sëriñ ci di def bu sa yaram tàngee rek da ngay wax mel yow rab moo la jàpp wala jinne moo la jàpp fekk loolu lépp jàpp la rab nit mën ko fajal boppam ci lu gaaw ci loo xamante ni lu ko jege lay doon ci këram wala it loo xamante ni ca koñ ba mu dëkk wala bitik ba mu dendal da koy jaay pour mu mën faj rab ñun nag wàllu xàmb moom dañ cee yaatule ndax sama famille fii ma nekk fii ci mbuur daanaka ci kër goo ci dem xàmb yaa nga fa sama yaay moo ko sama dëkkit xamb bi gën a mag xam naa ay jamono ci ginnaaw incha allah dinañ waajal dem ba foofu def fa émission bu soobee yàlla waaye xàmb yi daal képp koo xamante ni suñ borom nar na laa dimbali boo fi ñëwee ba sangu fi boo génnee rek boo toogee fi yow yaay sa bopp. da ngay sentir tawféex da ngay sentir lépp sa yaram. d'accord macha allah. loolu am na solo également euh, ci wàllum euh, jigéen ak góor ci biir néegu sëy yi maanaam euh, jàngoro yi nga xamante ni dafay faral di am ci góor comme ci jigéen maanaam jigéen ñi nga xam ne ñu nekk seen biir néegu sëy te dañuy taxaw taxawaay bu yàgg maanaam pour am doom. day xawa day jafé dañuy faju fu nekk ci hôpitaux yi fu nekk dañ fay dem ngir manam saafara lolu mais ba légui dañuy gis de plus en plus rek euh, phénomène boobu dafay gën di dafay gën di fréquent ci li nga xamanteni mom bondi société bi également ci li nga xamanteni mom moom moo di góor ñi maanaam feebaru tële góor goo xam ne impuissance sexuelle euh, dafay tële néew kàttan loolu ci sey est-ce que lolu également Serigne Djibril fay amna ci ay saafara waw lolu tamit defe naa ne xam-xam moom dem ba di ko ji di ko wuti di ko sàkku ji moom yooyu yëpp da nga koy maanaam da ngaa war a nekk koo xam da ngaa war a fees ba fépp fuñ la wokk rek nga xuri leen wàllu woowu dañ dañ bu baax impuissance bari na lu koy waral manam góor ñi nga xamante ni dañuy nekk ndaw di wet seeni biir yi nekk du fawee seeni awra bokku na ci li ko waral ak lekk gu bon gi nga xamante ni xew léegi waaye man amna naa ci garab goo xamante ni jeex Euh, buma la ko defalee jour biñ ko utiliser jour bobu ngay gis résultat ah, ndax di nga melni ni ah, bu fekkee ni ci walu am dom jigen ju taxaw lu yag ah, dañ koy ci ci ci am ngeer am na doom boo day day sax ci kawam dañ koy liggéey ci loolu même dañ koy liggéey ci ci ci nen <laughs> pour jigen bu am dom bu ñëwee buñ ko buñ ko defalee liñ koy defal rek bu ak borom kërëm ci semaine yooyu dina gis ne dina jàpp ëmb te bu jàppee ëmb incha allahu rabi bu ñëwaatee dina am luñ koy jox mu boole kook soow naan ko day am doom bu soobee yàlla. <laughs> d'accord euh, yaakaar naa ne le message bi bien passé et que ñi nga xamante ni ñoom ñoo di teewlu émission bi rek euh, daañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ñëw nag ci li nga xamante ni Sénégal euh, ñëpp la intéressé mooy wàllum bayre lan la ci Serigne Djibril Faye di def. waaw bayre de moom. Mm, dang koy xol dang koy comme sama jëm ji rek dang koy xol sama jëm ji rek man suma génné fu ne la nit ñi di wax ku nekk day wax programme buma dem nit ñi sama tour bi ku ne day wax lolu nit ki da koy xol ci bopam rek walu bayre man dama ci liggéey bayre bu tumu ranké bo xamanteni ma ngoy liggéey ci xobi gang ak béréwéngel manam timin timin ak ndawalu nak wa man dama lay wax lo xamanteni do deg dégg bu koy wax wala doo dégg sëriñ boo xamante ni day liggéey noonu ndax ñun bi gëstu jotee dañoo dem gëstu ji xam-xam ba am xam-xam maanaam yàlla def na si ñun ñu doon suñuy maam waaye dañoo génn dem di ko sàkku ji ah dama ciy defar bayre yoo xamante ni day yemee man am naa bayra yoo xam ne sax jat la am naa bayre yoo xamante ni sa yii lay doon booy génn da koy def sa loxo rek diw sa kanam ku la gis da lay bëgg nit bu la xool da nga koy neex ci saasi

ñoom ñëpp seen objectif lenn la muy tukki génn réew mi euh, gis nañ jafe-jafe yi am ci biir réew mi donc yu ci bëri seen bopp yi loolu rek moo ci nekk ci wàllum tukki ñi nga xamante ni ndax léeg nga dégg ñu naan diw tukki du chance tukki du yëfam te am na ñoo xamante ni loolu lañ bëgg day gis nañ sax yi ciy am mais xam ne ñoo xamante ni dañuy jàpp yoon sax gis ay gàllankoor yu ci am ndax loolu am nga ci ay saafara tamit moom euh, defe naa ni ñoo ngi may dégg te buñ seetaanee émission bi danaan xam bu baax mhm. man man yàlla dogal na boo nekkee bitim réew ak boo nekkee fii yëpp bu ma nee la di tukki di nga tukki bu ma nee la di nga ma fekk ci Sénégal fii fekk ci Sénégal loolu suñu borom dogal na ko ci man waaw yàlla dafa moo def ci man euh, bu ma tubbee suuf sax su ma jëlee sama loxo rek am lu ma def nii ci suuf ci ramli rek jox loxo nga dem sangoo ko falaa budde di nga tukki waaye it am na ci leneen loo xamante ni dañ koy liggéey ci wàllu visa ci wàllu ramli buñ ko liggéey ba pare ci garab nga koy dem takk si kàttanu yàlla danga tukki waaye nag tukki dafa am kenn ku ci nekk réew ma gën ci yow am kenn ku ci nekk tukki gënut ci yow am ñoo xamante ni liñ war a am fii lañ koy amee ci ci dëkk bi aha loolu lépp dafa war a fa am par exemple am na koo gis naa koo xamante ni wallaay léegi nii rek léegi nii nit message na ma def na àll ay ati ati at mënta am dërëm te réew ma mu nekk amee fa yomb na waaye moom mënu faa amee wërsëgam daa nekkut foofu léegi nag kooku buñ ko seetalee suñ borom dinañu woon li nga xamante ni mooy saafara loolu buñ ko liggéeyee loolu day gis ne moom ay buntam dina tàmbali ibbiku foofu te li mu bëgg dana ko am mhm, noonu la demee. ndax sarax rek mën na mën na mën na defar lépp sarax képp. d' accord d' accord léegi ñu ñëw également ci jigéen ñi nga xamante ni nag ah, ndax sama mbokki jigéen ñi également wax dëgg yàlla dinaa leen jàllaleel seen ay message bu baax a baax jigéen ñi bëgg jëkkër te mu ta leen lool. ngay gis jigéen macha allah mel na mu war a mel di gis ñu koy bëgg di ko seet si mais pour mariage ñu gis góor bu am ak ñoom ay projet de mariage sax loolu problème la. waaw wàllu boobu bi tamit. yalla def na ci tawfiq am nañ fi sangat bo xamanteni mo na ci bitel be waaw buñ la ko rek nga am borom kër té lool li waral en général nit mënoo ko defal mo am borom kër ta fajo ci rap hmm rap moy def lool lu bari gis na jigen yu bari yo xamanteni yu bari nit day ñëw ba wax ak ñom ba indil leen premier cadeau mayat leen premier cadeau ba daw dem yonam te doo xam lan la doo ci teg waa ji doo teg ñoom kenn fekk rabam moo dàq waa ji am na ñoo xamante ni nag falaa budda ñooñu duñ am jëkkër abadan ndax ku sëy ak ñoom seen rab da leen di rey. kon li ñuy wax faru rab sa existe bien. waaw lu am la. d'accord faru am la. d'accord hmm. te noonu la amee itam ci góor ñi. waaw noonu la amee ci góor. Hmm, bu fekkee bu ni ci góor la amee. Mhm. am na ndomb bu ma lay jox nga fanaanoo ko juróom-ñaari fan. boo ko fanaanee moom rek dootoo ko gisati xanaa xamoon ni góor rab da koy jàpp ba bu tëddee guddi da koy sëyloo chaque instant muy sëy moom bu yeewoo day am lu ko naqari lool ci li ko dal fekk loolu rabam moo koy def loo noonu. d'accord léegi ci wàllum xëccoo tey jii nga nekk ci place euh, tu vois que am nga par exemple sa ay collègues yoo fa nekkandool yow am na benn poste bu ñu la jox euh, ñoom itam ñu ngi ci teg seen bët ay xëccoo yu mel noonu am euh, loolu également yan ñaan nga ciy def. waaw wàllu xëccoo moom muy ci nguur muy ci kër muy ci place muy fu mu mën a doon bu ma liggéeyee li may liggéey ci boppam naat ba sox ko ci lii ma takk nii lii su ma ko liggéeyee ba jox la ko nga suul ko fa wala nga takk ko képp koo xamante ni na xëccoo ak yow bu demut bàyyi day dee amul ma dem te ñëw loolu moom amul lu ñuy laam-laamee bu dee kër la bu kër googu bu lii bu xasee ba suuf si lekk ko fa kër googu kenn dootu ko mën a jëlati ci yow ku fa dëkk de ah la defee. ci li ñëpp bëgg nag muy xaalis ku bëgg xaalis. waaw <laughs> xaalis de waaw moom la ñëpp bëgg de. Mm. waaw waaye. xaalis mooy ibbiku. Mm-hmm. nit bu yaramam setee. Mm-hmm. cat den ci moom. Mm-hmm. làmmeñ den ci moom. bët den moom. lu mu bëgg da am. nit bu setee rek boo ko sangee ibbiku rek day am am na lu may liggéey lu naan adama ci ramli. su ma ko liggéeyee moo gariya laay boole bind ko ay lim jox la ko nga boole ko xaalis xooj ko da ngay am xaalis fii am sangat bu fi ne boo xamante nit képp ku ko sangoo ci sa àdduna balaa ngay faatu di nga nekk milliardaire képp koo xamante ni sangoo ci sa àdduna di nga nekk milliardaire soobee yàlla li nga tamit dinaa ko bayee après day maye xaalis loo Euh, xay bu mësta laal weñ moom nga koy defaree nga sangoo ko ñetti àjjuma benn lëndi dootoo tàggoo xaalis sa àdduna fu ne la xaalis di dikkalee loolu man maa ko may sëriñ si nañ ko jël <laughs> non bagage yooyu moom faaw nga baaxee ñu ci mm-hmm. ñun ñëpp bëgg am xaalis nag mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu ñëw ci nopp ku bëgg nopp waaw nopp day moom mm-hmm. sama mbir la sa yëf la daal waaw sama yëf la nopp moom <laughs> loolu loolu loolu loolu yàlla dimbali nañu ci nopp te te li ci gën a neex mooy ñun nopp nunu neex lañ koy defee waaw dañ ci maanaam xam-xam yi ñu ci am moo bari su ma neexee dama koy fas su ma neexee dama koy jàpp fii ci jalan yi su ma neexee ma di ko jàpp fii. il faut sax il faut également. que sëñ bi nga toj li nga xamante ne moom moo di nopp parce que am nañu koy dégg rek. Mhm. Euh, ci ci comprendre wu ñu exactement moom mooy lan. waaw il faut nga ñëw ci exactement lan mooy nopp ba pare. waaw nopp moom. Mhm. mooy ma gis ta tey ji bëgg la rek. ñëw wax la ko nga daal di bañ waaw ma ñëw def li may def fas la sëf la wala ma ma dem bind suul foo xamante ni day tooy bu ko suuf si lekkee rek jeex na dootoo ma bàyyi tim te man noob yi may def am na ci boo xamante ni bu ma ko liggéeyee ba jox ko xaj ba mu lekk ko. Mm. jeex na. topp la ne xaj ak waaw kooku dootoo ko bàyyi ti mukk ci at te amul dara lu koy bañ. <laughs> amul am na noob boo xamante ni maa ngi koy defaree ci sama deret sama yaram. Mm-hmm. laay dagg def li ma def ci jalan yi. jour bi da ngay tok lolu am ci jour bi ah man jaru ma kay def man jox nañ ma bop ba waaw ta gis nga liggéeyu sëriñ ni ni walu nok mo gëna bari ci aduna sant bi te it bokku na ci sëriñ ci liñ gëna télé muy nop man bari na ay sëriñ yo xamanteni dañ may sant nop ma di len ko defal bari na du xaj du jeex mhm. te moy li gëna jafé jafe ci mhm. ñaar d'accord mhm. d'accord ñu ñëw nak ci ku bëgg yëkëti ku bëgg dara ja waaw wàllu daraja man maa ngi koy liggéeyee béjjënu xar bu ñu fokk waaw ci laa koy liggéeyee bu ma la ko boobu dama la koy jox ne la génnal léegi nga dem defal sa poche nga génn dem boo génnee dem da ngay teg sa bët da ngay mel ni liir bu judduwaat ci kanamu nit ñi ku la gis dañ lay bëgg foo dem yaa fay féete kaw waaye am na ci boo xamante ni Yuusufa laa koy liggéeyee kàkkatar nga takk ko sa sa ndigg jotaay boo dem da ngay rafet ci ñoom da ngay changé yéen saa saa nga mel nii saa saa nga mel nii loolu it bari na luñ koy liggéeyal ay ñaankat ñu di ko yore bari na sëriñ booy gis muy changé ay ay ay kanamam di changé fu mu dem nit ñi di ko daw loolu la takk. d'accord d'accord. yaakaar naa ni loolu am na solo defe naa sax euh, li ñu war a waxtaanee yëpp euh, du xaj rek ci benn émission donc li ci des euh, dañ koy fas yéene lépp ba beneen laataa loolu rek dañu lay bàyyi nga tàggatoo daal di ñuy baaxewaat li nga xamante ni également moom moo di adresse bi précisément ak contact yi waaye balaa ñuy tëj nag émission bi mënuñoo ñàkk wax ci li nga xamante ni <laughs> fekk nañ ko fi gis nañ fi lu mel ni nataalu ku tedd ki Serigne Béthio Thioune ak dégg dégg jëmmam ji soxna Aïda Saliou Thiour ñu bëggoon également nga ñëw ci sa digganteeg euh, jëm yooyu rek. waaw loolu moom dañuy santaat bu baax sëriñ bi. Mm-hmm. di ñaanal soxna Aïda Saliou Thiour. Mm-hmm. dëgg-dëgg sëriñ Ba mu yàgg fi loolu te gën a wér. Mm-hmm. waaw ñun ay cantaakoon lañ. ay taalibe sëriñ Ba lañ. ñoo ngi jébbalu ci moom 99 ba 2019 ni mu fi jugee ci suñuy bët waaye moom donte moom du ko fiy jugee. laataa nag ma fi jógee moom moo nu booleeg soxna Aida Saliou Thioune muy sunu sëriñ Bàcco di suñu lépp waaw moom donte budul woon booleeg gim ñu booleeg moom. Mhm. moom rek moo ñu neex. léppam doy nañu. waaw man damay wax damay wax ne man du ma du ma du ma sëriñ ñaankat laa. Mhm. ndax dama am kilifa. te man soxna Aida mooy sama kilifa. mooy sama sëriñ mooy sama lépp. te it faj aajo moo ci gën a gaaw. dëgg la <laughs> waaw loolu am na solo loolu am na solo macha allah kon euh, dañu koy bàyyi rek euh, mu daal di ñuy baaxee li nga xamante ni moom mooy adresse bi baaxee waat ñu ko précisément ak euh, li nga xamante ni rek moom moo di contact yi tey ku bëggoon jote ci Serigne Djibril fay fu muy jaar. waaw Serigne Djibril Faye moom. Mhm. benn numéro bi mu amoon. nga xam ne moo gën a fës ci ay numéro boobu la yor à part ça numéro tigo bi fi ma dëkk it fii laa mës a dëkk. ci koñ bi fi la dekk fi la juddo fi la tuki, luma changer tamit lié mukk xana ma genn tukki rek ku ma soxla da ngay xaar ba ma ñew ma ngi dekké fi ci Mbour ci bori police jamm gën bi bori école Cosmos Serigne Jibril Fay, borom tawfiq xamna numéro yi après di ngeen ko duggal inshallah rabbi kep ko xamanteni wote nga fi man ngay jot directement amul secrétaire amul dara manam li xew ci serigne ci man amul fi. boo wootee mën ngay jot. Mhm. ay ci mi ngi noonu mbokk internet yu xéewal TV ñu jaajëfalaat leen bu baax a baax rek ci fidélité bi topp bi saa su nekk rek ci suñu ay programme fii ci suñu plateforme digital xéewal TV ni ma leen ko waxee woon rek ci ndoxteel émission bi ñoo ngi doxantu woon ba tey fii ci Mbour Géej quartier bu ñu naan jàmm gën seet si woon borom xam-xam bu rëy boobu di Serigne Djibril Faye borom tawféex dégg ngeen li nga xamante ni rek moom leen leen dégtal ci xam-xam kon nag euh, ngeen gis rek euh, contact yi mi ci bas de l'écran bi mun ngeen ko am daal di seet si ko bu ko defee rek mu daal di faj ajo yi xam ngeen ni lu neex du doy nag te lu nuyoo dafay daal di tàggoo dañ leen di dig daje rek euh, prochainement ak beneen gan incha allah rabbi fii ci plateforme digitale Xeweul TV